tey jii nii lan lañ mën a xaar ci Mama Lamine le premier gars yi nee nañ danga saf mbër da nga am ambiance doo bàyyi dara tey la premier lan lañ mën a xaar stade Iba Mar Diop le premier incha allah premier décembre. waaw le premier dëgg yàlla liñ ciy waaj mooy waaju waaju làmb mënuñu waaj leneen dul làmb. danañ gis cosaan. waaw ñun ay séeréer lañ te doomi séeréer lañ waaw des fois ñu dañuy woo sax naan ñu yow nga nekk séeréer ba pare te doo def yëfu séeréer topp taas ma taas bi rek ko ci laa nàmp nàmp si séeréer dëgg voilà mais nag dañ ne boo defee soow def ci suukar boo ko yëngalee loo ko war a def. xanaa naa dañ koy dañ koy séeréer ba moom sax nga yaakaar ne ca la ñuy yem ñu wàcce ko Baara Mbay ah <laughs> ba dina wàcc ba zéro wala zéro degré loo fa gëj gis boo ñëwee di ko fa fekk laa liñ dinañ ambiance dinañ fair bëree dinañ daan dinañ ñibbi incha ci kàttanu yàlla. sa ci Kewel loo kii euh, premier janvier ba le premier décembre. moom nag kaay kaay fàtte naa nee na doo puus doo ah, ci réew mi laa dëkk. Jokal bi muy ñëw fii mbuus la yor mbuus. daa paas ñëw. bu ñu nag dañ koy dalal. na réglé rek. bis bi lan moo ñu dëkk si dëkk bi ngay jël ñi paas. waaw ah, parce que mu Fatick la jógee Gandiaye te Gandiaye sama maam fa la dëkk Fatick sama maam fa la dëkk. maanaam bu ñuy foog ma teral. dañ koy ganale de. xam ah, dañ naan Sénégal réewu teraanga la réewu teraanga la dëgg la de mais teraanga xam fu mu fekk mooy gan bu jógee fee ñëw nga war koo teral xool dëkkuwaay ba. mais moom nee na xew foofu le premier incha allah mooy diriger de. luy simb rek. nee na doo def dara de lii de bambay war bi ni prix bambay lay taxawe ma ko bu ma ñëwul du ñëw. man jokkeel waxuma loolu. ñëw yow kooku xam nga ni bu la waxee loolu yow bu dee gor nga sax yow war nga ko ni li nga wax ni du amul li ngay sóobare war nga wax loolu. ah ay wax boppam mais da ko ci fekk si. ne ko lii gars yi nu ngay wax. yow tamit est-ce que nekkul daa tëdd ko ko. am naa soxna seeb koy doy rek xam nga moom fan yii tax na jabar <laughs> jógeel na ku dëgër fit la waaw ah. <laughs> jógeel avance bi la ah, man ñun ñu ngi sonn amuñ sa xar tabaski mais moom avance bi naa ci la takkee jabar am ku takk jabar ba pare boo jëndee xar bare nga ji waaw ah, man nag essence bi mooy loolu ñi ma amoon yëpp def na ko ci bis bi mais nag ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw taxawuñ jàpp ñu soxla nañ ko trop waaw ndax wax dëgg yàlla benn benn nit lu mu mën ñaara ko dàq te fii am na ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi fii xam nga waaw defuñu lu dul xaar lépp sotti ñu bëgg cee nekk ñu góoma mbër laa te laa mënuma lu dul laay mës a sama deret gi ngénte ma xaalisu mbër de mais mbër laa maanaam ni ngénte xaasu mbër ëppale dara mbër dañ ne judd gu rëy ndey ak baay la waaw fulla fayda borom lépp loo mënti nekk te àndal ci fulla ak fayda doo ci dem yow lépp lépp loo yow roi des arènes bi ngay dem di uti du sa bàyyee ko liggéey wala sa yaay yow yaay koy koy liggéey dem jëli ko àndi ko mooy ak luy mënti xew rek yow jàppal ni yow yaa am décision bi sa yaay day ñaan sa papa day ñaan mais yow yaay dem def fulaak fayda li ñuy ñi mën yëpp dañ koy def mais li des yow la waaw man nag li des man maa koy dem def ci dans les normes mu jeex. dama ko bëggoon dagg mais faa ma dugg ci ki nga xamante ne mooy booy ñaar ak Balla dama ko gis nag euh, euh, ci euh, net bi nee nañ Balla nee na suñ ko fayee cinquante millions mu bëri ak Boy Niang est-ce que normal waaw bu ko fayee 150 millions. war na mën a bëri ak Boy Niang. bëriwul ak fi réew mi tool nii. la wax dëgg yàlla Balla Gaye mooy làmb de waaw bis bu bis bu neex bis bu fees stade bu fees waaw dama Léopold Sédar Senghor rek nga ne ko noo tudd mu ne la Balla Gaye 2 waaw kon bu laajee 150 millions moom Boy Niang. yow lan moo tax nga ne stade stade Léopold Sédar Senghor Balla Gaye 2 la tudd. waaw fa def benn mbër defu ko fa di. la fa def déedéet da koo duy ba fees dell. produit moom fees. moom kan la woon moom kan la woon moom kese la woon moom kese moo ko duy ba mu fees. non li muy andi ci mbooloo amul mbër bu koy andi ci mbooloo. yeah bu réclamé cent cinquante millions war nañ ko ko mën a fay. booy ñaar bu réclamé war nañ ko mën a fay combat bu neex la. kon maanaam yow d'accord nga ci grand contre petit. yeah d'accord naa ci parce que man ki may bëreel grand la te man petit la man maa ko tàmbalee grand contre petit. tey guy gi guy gi Gris Bordeaux. guy gi Gris Bordeaux waa Gomba la. Gomba la waa Gomba. Modou ak ki nga xamante ne mooy Ama Baldé sëll bu ndaw coow li bëri na torop tey jii Mama Lamine lan la ñu si mën a wax parce que moom moo ko doon laaj mu ne buñ ko fayee mille francs sax dina bëri ak Modou Lo tey fay nañ ko 80 millions mais def na dafa am staff am ay mbokk tey jii nii lan nga ñu mën a wax. waaw ah, xam nga Ama mi réclamé woon ne pare na pour bëre ak Modou Modou loo ne pare na pour dem pour bëre Ama Baldé waaw ñu dem ba mu réclamer quatre-vingts millions muy laaj cent millions xëy na loolu moom yëfu boppam la waaye làmb bu nar a neex la te askan bi yëpp moom la ñuy xaar. maanaam ku ko tëgg doo perte. ku ko tëgg loo ci perte ñoom ñaar ñi koo ci fay deux cent millions jar na ko parce que ay mbër lañ mbër yoo xamante ni ay entreprise lañ waaw ku leen fay xaalis jar na ko Modou loo Ama Baldé combat bu neex la. loolu nag combat la tamit combat ji rek rek moom loolu njar ndéem la. day nekk waaw fi ñu ko war a bëree rek man looloo ma jaaxal ñaari pungal rek. waaw rek rek xam nga ni sampion la wax dëgg yàlla. mais dama gis temps yi Forza di laaj rek rek Malick Niang bëgg na bëri ak rek rek tey jii Malick Niang ak Forza boo ko doon jox rek rek koo ko ci jox. non ñoom ñaan ñëpp duma ko ci jox duma ko ci jox kenn rëg-rëg am na ay mbokk am ay staff am na ñu war a waxaale combat am na ñu d'accord loolu mu yëfu boppam la choisir nag bi muy choisir loolu na jóge ci moom waaye Reug Reug ma duma ko ut adversaire képp ku takk ngemb war nga mën a bëre Reug Reug ndax champion la il a fait ses preuves wane na boppam ci làmb ji bu ñëpp ràññeeku kon nag li si des mooy gars yi dañ ko jël bëreeg moom tey gisuñ fi mbëru lamsaari ana ñu ñu daan ñu mag non xëy na dañoo am ci luñ nekk mu Siteu muy États-Unis Feugueux muy États-Unis Nees muy États-Unis. Feugueux la kañ la def États-Unis. Feugueux la est-ce du barki démb xaw démb. la ñoom ñëpp dem nañu. waaw ñoom ñëpp dem nañ taxee sax Papa Sow. non peut-être mais Papa Sow ak Siteu loolu yàlla dinañu defal jaam ba mu am date ñu war ko bëre ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ci kaw Papa Sow. xalaat nga ne Siteu am na bëre bu daan Papa Sow. mais pourquoi pas. ngay def boo ci àndul ngëm-ngëm du la jariñ. Siteu bu ko leeroon ni mënul daan Papa Sow du jël avance am mbër mu jël sax xaalis daa pare pour daan la. làmb làmbatu la. dañuy du làmb daj. waaw làmb la rek reenu njàmbi la waaye kenn xamul fu muy dammee. Ah, boo fa duggee di làmbatu nga xam. léeg-léeg <laughs> dugal ci làmb arbitre prime ngay dugal sa loxo di làmbatu nga xool da defati de pël li ma lay wax leen daal na lan Papa ak Siteu loolu événement la. date bi lañuy xaar ñu confirmer ñu ñëwee lépp lu war ci bis boobu dinañ ko ci def di ñaan Siteu yàlla may ko ndam ci kaw Papa Sow jël bu set wécc wécc wécc wécc. Hmm. Papa Sow dina leen ci bàyyi. non loolu xam nga nit li ngay maye ak li li li ngay dénkaane wala li ngay able loolu yaa ko yaa ko moom. Hmm. waaye li nga moom li ñuy ñëw jël ci ci par force. sarax ndongoom baa mu jëleek dooleem. non dama lay wax. Baye Fall laa la wax amul lu muy ñàkk ci àddunaam lu mu yóotu da ko war a jot. maa ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggatoo ak euh, li ngay wax autorité yi nga xamante ne ñoom ngeen dëkkal fii sa relation ak ñoom tey jii lan nga leen di wax le premier nan la ñu war a taxaw Mama mi ak ñaata kaar nga war a yóbbu stade ndax te loolu noonu amateur yi dinañ ko soxla te yaakaar na promoteur bi tëgg làmb ji si boppam dina soxla loolu est-ce que doo yóbbu 30 kaar. man nag ba dalee bëre ba léegi mosuma génn ci mbedd bi di xool ñaata kaar jokkee déedéet nag yow nee na kii lay yóbbu ay bus musul yóbbu musul yóbbu musul yóbbu kaar moom ay bus lay yóbbu. jokkee li benn te boo xee benn bu rouge la <laughs> benn oto bu rouge. te nee na midi midi moom bu leen fekkul <laughs> jokkeel benn oto bu rouge la yor mu ci yabee ay biteel la mag yab ñi ci cumbukaayam yooyu jeex na amul leneen lu koy topp <laughs> jokkeel na ñëw ñu feesal ko stade bi dell. feccal ko ko neex. ñu daan ko lu am jom dem ñibbi amee na fit na moom midi bu leen fekkul stade sa supporter dinañ toog. kala jokel ba mu dalee ba léegi a gis. ay ah, li may tàggatoo mooy di la jaajëfal xam nga di jaajëfal caméraman yi xam nga di wax xam nga pisel lovel yokk ba yëg ko di suyaar sama xarit yi ngay gis fii yëpp xam nga nag du tey démb la waaw waa gétt gi démb la démb la waa kër maam xam nga yooyu ñëpp maa leen di sant bu baax di woo autorités yi fi nekk muy muy ma Mass Sarr suma yaay suma mama xam nga ak euh, ndoofeen Fall borom jàmm gën si Kaab Mbaaw maa ngi koy woo ci bis bi bu baax a baax a baax di woo suma benn xarit bu nekk Paris muy Pape Cissé ak Góorolo ak Samba Bruxelles xam nga di woo waa jàmm gën si Kapp Mbaaw ñëpp tëli maam jaara tëli karo mbedd bu mag fas Mandela ñëpp ñu ñëw jàpp ci bis bi parce que bis bi yàmm na amatul li ñuy xaar takk jóg bu jotee nag ñëpp nañ takku jóg waaw dem jëli li ñu moom ñëwaat te dañuy dem waaye dañuy ñëwaat yàlla ñu yàlla may ndam bu sedd guy ci kaw jokkeel maa ngi woo sama mbokk séeréer yëpp yëpp ñu ñëw jàppale ma ñaanal ma ma am ndam ci kaw Jokel parce que làmb buñ ñàmb làmb buñ ñor la te làmb buñ bëgg la te xam nañ fu mu ñu war a yóbbu ak fu mu ñu war a jëlee. ak fu mu hmm, moom na ko fenn. Jokel yàlla dimbali rek mu daan waaye bu ko yàlla dimbali mu daan. <laughs> xam nga dàqoon yëpp lam fayoon yëpp da koy dàqaat. Ah, Jokel bu ma ko daanee dañ naan ah xamoon nañ ko nañ ko ah, xamoon nañ ko rek ngay dégg. moom bu ma daanee mooy loolu moom moo gën a. noo su la toppee pël. laa ilaha illallah gis na àdduna li ci nekk mooy xam ku ne xam ki la mën te nga nangu ko waaye nag wax ju bari moom waaw pour man baaxul ko Jokal moom moom. yow daal instant bi lan xam na man xam naa ko. mystique yeeg loxo yeeg lépp pare na daal yow. non man moom waxuloo mu jeex. non man ay mystique yow yaa ma ko man damaa xam luy mystique. Ah. mystique léegi ah. léegi suuf la ba may fecc eh. suuf si laa jëlee ma dinaa la yooyu amul man bin ki ma jur. yow da ngay bëri te doo doo ta da ngay bëri te doo def doo def. Assane a ne mooy sama seex. wax ma loolu dama ne. ndax da ngay bëri dama ne ndax da bëri te doo doo ay gàlla. non man may seex damaa utiliser gàlla ay sama. yaay ay di wax yow seex laa di. yow man may seex ngay seex. yow liggéeyuñ la ñu may liggéey. li nga wóoloo li nga mbëri nee nañ mbëri nee nañ. ah yow am nga muslaay man aw ma nga bëgg maa am loo ay nga. yow da indi buté da indi. ci làmb ji. waaw teg bët. Ah, nit ku baax day wax dëgg. damay mosoo maa gis ci làmb ji maa indi butéel. sa <laughs> <laughs> never give up.